attaque bus tata bi xewoon talaata gi ci yaraax mu mel ni lakk-lakk gi ba léegi fayagul noonee la ko réew mi quotidien daal di xamale ni ki tey ji li ko waral yéenekaay bi jàpp ni jamono ji tembe moo jur coow ba ci sax géew politique gi ndax Benno Bokk Yaakaar dañoo dëggal ni am na ci Sénégal jamono ji tembe ñu ñu duppee e force occulte fësal na tamit ci biir kàddu yi nga xamante ne waa Cap Trans yor bus yi ci seen wàllu bopp daal di nañ koy indi rawatina ci ligne 65 bi nga xamante ne benn ci seen bus moo daal di lakk ci jamono joojee procureur de la république moom daal di lancé ab appel mbir mi nag yegg na ba ca palais de la république ndax ni ki démb ci ndajeeb conseil des ministres réew mi quotidien di ñu xamal ni kon njiitu réew mi daal na ci addu wax na ni li yëpp fexe ba déstabiliser réew mi indi fi ab kaw moo tax nit ñi di def lu ni mel lu ni mel nemmeekunaat nañ ko ca diwaanub Thiès les échos daal di xam ne ni foofu tamit dafa mel ni lu toll ci ñetti bus la ñu daal di taal ba mu jeex tàkk procureur jàpp ni tamit ab acte terroriste la ba tax mu daal di activé ñi nga xamante ne kon ñoom ñooy waa section de recherche gannaaw yaraax bees dugg ci mbir mi noonee la ko Vox Populi daal di xamle mu mel ni bus yi muccatuñu fenn moo tax bis bi le jour jàpp ni attaque yi nga xamante ne ay cocktail molotov lañ ko defee tax na ba yëf yi daal di jaxasoo fu mu toll ni ci biir biis bi ay kàddu Macky Sall fës na fay tamit muy wax ni attaque yi nga xamante ne moom la ñu nemmeeku jamono ji ci bus yi ay nit yu ko def danu ko waajal waaye teewul état dina fexe ba daal di leen teg loxo teg loxo yi sax tàmbale na ba noppi ndax yenekaay bi mu ngi xamal ni police bu golf daal dina teg loxo ñaari dañoo fekkoon ci ñoom ay butéel essence ak ay masque yi nga xamante ne kon moom la ñuy muuree seen kanam ci kanamu sénégalais yi nga xamante ne réew mi quotidien jox na leen kàddu dañoo gis ni attaque bi xew ca yaraax jar na samp laaj yu bëri ndax mi yëf daal dafa mel ni xel tàmbali naa tey mu mel ni sax gis-gis boobu la enquête quotidien am moo tax muy jéem a gëstu lan moo ciy dëgg ak lan nga xamante ne moom la xel mënut a nangu gannaaw attaque bis boobee nga xamante ne ca yaraax la xewee li xew daal ca yaraax le témoin yéene na ci lees waxul ndax mën naa nekk ab attentat bi nga xamante ne dana ko maquiller li ko waral yéenekaay bi jàpp ni ba léegi ñaari nit yu ñu jàpp ni ñàkk nañ ci seen bakkan kenn xamul ñan la gisuñu sax niw yi naka noone ñu ñu jàpp ni jëlee nañ ci ay gaañu-gaañu ba léegi kenn indiw ci ab témoignage ba ñu gis ko ak ay gaañu-gaañu ma moo tax la tribune di ko ci feelu jàpp ni mbir mi daal doy na waar lool ndax ba léegi rescapé ci seen wàllu bopp dafa mel ni ay fantôme lañu maanaam kenn mënu a teggët garde à vue libération moo ñu ko xamal yéenekaay bi di ñu xamal ni yemul ci moom ndax jamono ji tembe lu toll ci ñeenti maire yi bokk ci parti pastef ñu ngi ci loxol yoon gannaaw dogal bi ko jiitu muy tas parti bi ci boppam moo tax yor yor jàpp ni état dafay salfaañe ay loi yi mu moomal boppam ndax ba fi ñu toll pastef moo nekkoon cundung ab parti bi nga xamante ne day déposé at mu yàlla sàkk lu jëm ci ay comptom ci ministère de l'intérieur naka la ko yoon wi santaane moo tax muy laaj sax ana fan la loi 1989 36 bu octobre 1989 toll ci wàllu parti politique yi parti APR wala sax coalition Benno Bokk Yaakaar ba léegi ñu ngi ci wutum candidat waaye mu mel ni jamono ji tembe ki ñu njort ni moom la njiitu réew mi war a taamu le quotidien le quotidien jàpp na ni boo moytul Amadou Mame Diop la mi jiite assemblée nationale li waral nag njort bi tribune yéenekaay ànd ci sax ak le quotidien jàpp ni moom Mame Diop am na ndimbalu ki nga xamante ne mooy soxnaal njiitu réew mi Marième Faye Sall waaye mbir mi boo moytul dina jur coow ndaxte ay ancien ci parti APR leader noppi nañu ngir daal di fippu waaye boo moytul duñu ca yegg ndaxte tey ji la lépp di leer gannaaw l'observateur mi ñu xamal ni njiitu réew mi dina dalal ñi nga xamante ne ñoom ñooy candidat yépp ca palais de la république ca prison gi mu nekk Ousmane Sonko jamono ji tembe wér-gu-yaramam demeewut noonu l'évidence moo ñuy xamle lu ni mel yokk na ci sax taskatu xibaar bi di Pape Alé mi nga xamante ne tamit wér-gu-yaramam dafa tagga témbe mbir mi gën naa tagga témbe ngir yeewi askan wi Walf ëllëg gannaaw bu ñu tegee loxo kenn ci seen njiit di Ousmane Sonko li des nag suñu naataango yi jàpp ni mooy fexe ba méngoo ak géew politique gi fi mu toll jamono ji wala bokk coalition bi ci boppam daa di tas tasaare laataanu ciy xam lu leer le mandat moom dikk na ci Khalifa Babacar Sall ak Karim Wade mi nga xamante ne dañu war a dellusiyaat ci géew politique gi mu ci sampab laaj ndax ñii dañoo nekk ay opportuniste ci wàllu politique wala bokk dañoo war askan wi wala seen xel sax ci taxawaay bi nga xamante ne am nañ ko ci seen xeex ba dellusiyaat ci géew ji Juan Branco mi dellu siwaat ci ndakaaru ci anam yu jaaxal askan wi réew mi quotidien di ñu yëgal ni plainte bi nga xamante ne Quai say daf ko déposé woon mbir mi dafa mel ni du mujj fenn li ko waral yéenekaay groupe réew mi network bi daf ñu xamal ni dossier bi ci boppam la yoon ci diwaanu France daa di jël teg fële maanaam classé ko sans suite libération classé li nga xamante ne moo xewoon ci hôpital Abass Ndao gannaaw liir bi nga xamante ne dañu ko fekk mu ñàkk bakkanam ci machine à laver Libé di xam ne ni kon ay agent Silla naka noonee Diène dañu leen mujj yóbbu ca parke waaye ci enquêteur bi Silla ci boppam nangu na ni moo jaxase kon liir bi ak ay yëre laata mu koy dugal ci biir machine bi ñeneen yépp sax daanaka témoignage boobe la ñu daal di indi Sud Quotidien ceeb gëstu bu yaa indil nañu jafe-jafe yi nga xamante ne ay migrants noirs africains dañ koy dund ca diwaanu Tunisie muy xeetu boddi xoqatal gu nekk ñu koy dund ci réewub Tunisie gaynde yu Sénégal ci wàllu basketball yegg nañu ci demi-finale Afrobasket ñeel jigéen ñi sport euh, de dikkaat ci ndam li nga xamante ne goney Moustapha Gueye am nañ ko ci kanamu Cameroun ni ki démb ci quart de finale yi waaye yëf yi dina métti ndax demi-finale yi nga xamante ne tey ji lañu koy amal seen diggante ak Mali lay doon te mu amoon ndam seen kaw ci phase de pole bi Stade Quotidien wax na ci colonne vertébrale bu Sénégal muy ñetti kàngam yi nga xamante ne jamono ji dañoo exilé wu ci Arabie Saoudite Edouard Mendy